a ah, man xanaa gaa yi xanaa gaa yi yeneen ustaas yi dem waxtaan ak président waaye man xalaatuma ko sax dama ko xalaatu rek parce que xalaatuma ko mukk man bu ma ci duggee am naa ci yaakaar bu ma ci amul yaakaar du ci dugg président mag la xam na lu bëri am na loo xam ne mu toog sax bañ ko wax gàcce ñaar ñiy jote nañ war naa dox seen diggante na ci dox ndax mooy kilifa réew mi mooy ndey mooy bàyyi réew mi mooy ci dox woo woo woo leen ñëw mën leen teg leen ci suuf parce que coow li baaxul te lii fa mu jëm du baax waaw mu jeex. bu waxul da nga jàpp ci gannaaw wala. déedéet man waxuma ma ku ne ci gannaaw ku ne ci kanam dama ne. Mm-hmm. Eh, kii def ne ne ustaas yi ànd. dem seeti ko ma ne. Mm-hmm. li ñu àndee si ëtti moom xam na ko moom xam na ko xam na war war naa woo Pa Mbay ma ma ma Mbay ñaa war naa Ousmane Sonko mën na leen a woo waxtaan ak ñoom waaye ay ay ñoom sama yoon ñëw man du ma dem man bu bu bu ñu woote du dem mukk ci àdduna du ma ca dem. waaw mag yi sax dafa si wax dëgg yàlla sa tamit boo waaw soxna si ma ci jaaree xëy na dana sotti waaye dama xamul actuellement fu ñu toll ndax mbir moom danga xamul fu nit ki toll waaw waaye nag ñaan as gor loo xam ne mënulu koo may te dana la ko may loolu doxul waaw gor boo koy ñaan danga koy ñaan lu lu ñaan lu da ngay fa nga war a yem dafa baax xam nga di xuus ba yegg ci jigéen ji wax ak moom fekk góor gi dogu nañ ci la ñuy dog ñu ne la waaw baax na du mujj fenn te mm-hmm. ñoom it du leen gënal mm-hmm. la gën ma bàyyi leen rek ak seen bopp mm-hmm. man la ma seqe soxna si xam naa ko la ma seqe moom xam naa ko su jotee ma def ko waaw jeex na waaye kanta dem naan ko may maag dimbali ñoo def na du ko wax du ma ko def am na ñeneen ñu gën a war ci ñoom ñoo xam ne ñoo ñu gën a jege ñoo ñeneen dem dox loola suñ ko doxee ah, ah Pape Mansour Mbaye nga <laughs> ah, ma Pape Mansour Mbaye kay ne ko dox <laughs> fi waaw ah, Pape luñ ko mayul ci mii réew mi kuñ ko mayul du du du dëgg luñ ko mayul ci réew mi ku ñu ko may du dëgg mm-hmm. waaw parce que euh, lu ne lu ne def na ko ci réew mi lu ne wax na ko ci réew mi mm-hmm. jàmm ju ne na ko ci réew mi mm-hmm. kon kay moom na ko dox waye na bu fekke ni ñom ñoo ñu ko wara dox loolu nak eh, dem nañ ba gis ne li dal mënuñ ci dox té la leen ci téré mëna dox xam nañu ko nañ leen bàyyi seen bop wa gor kenn du ko lu ñu ti boo ko ti da ngay gis do warta gis bo gisé rek mu ñaaw ci yow ah bañu indi jafé jafé té indi rayante kay burul ci parce que c'est sa leader la sa leader bëgg a bokk ñu ne du bokk ako ah, ko koy xam nga ne dana indi jafe-jafe yu métti yu méttee métti dana ko indi waaye loolu lépp mën naa bañ am loolu lépp mën naa bañ a am mën nañ ko bañ a xañ Sonko nañ ko bàyyi rek mu dem yàlla mooy fal bu leen fàtte ne yàllaay fal waaw yàlla mooy fal ku ko neex tutil mulka man tasha maliki yow mi diini mm-hmm. addiinu lii waxati mm-hmm. waaw yàlla mooy fal ku ko neex mais bu demee day gañe. yàlla xam de yàlla xam de yàlla daal xam mooy gañe su gañee baax na ñu bàyyi comme gouverneur suñ ko gañee mu muñ waaye bu gañee na dem rek la. Euh, waaw xam nga Macky dafa doy waar Macky moom ay mbiram ku yeewu rek tey parce que Macky mën na laa woon lu weex génne lu ñuul mën na laa woon lu ñuul génne lu weex Macky mën daal dégg guma mu wax ne dama damay ñaan ñaan troisième mandat danaa waxu ko niñ ko bàyyi ba mu yegg ndax dana wax moom ala kulli xaalin dana wax boo waxee nag ñu xam fuñ jëm ñu xam li ñuy tontu waaye fi mu ne nii kenn mëna ko la wax dara parce que boo waxee ba pare mu génne a ku la ko wax looy wax man maa man ko looy wax mm-hmm. nga ne mm-hmm. damaa defoon damaa defoon góor góor góor du ko wax damaa defoon ni nangam nangam moom nee ko jàngatee. ah moom kay nu mu ko jàngate man kay sama yoon moom kay nu ko jàngatee moom jàngat na ko ba wax ko moo xam waaw ah, moom bu dee tijaan xam na bu dul tijaan moo xam ñun daal tiijaan hmm. lañu. ay tijaan lañu ci hmm. ñu ngi ci sunu tariixa hmm. ñu ngi doxal li ñuy doxal bu ko doonee baax na bu ko doonul baax na ñun daal ñu ay tiijaan lañu jeex na. tarixa baa ngi dox mm-hmm. te benn nit mm-hmm. mënu ko yàq benn nit mënu ko gàllankoor kon ñu ngi doxal suñu tarixa eh, nañ ko war a doxalee mm-hmm. waaw moom bu bokkee bokkul ak bu affaire am la sax yokk yokk eh, du ci yokk dara tarixa bi du ci yokk moo ci yokk parce que ku werd ku am lii ku andem lii ku oh, oh, def oh. yaa ko ci am yow affaire la <laughs> mu mel na nag idi ko ci ay mu mel na Sénégal yi wax ko dëgg yàlla ñu bare bare loolu lañ koy reproché. Ah, loolu lañ na ko ci moom <laughs> ah, na ko jéem a bàyyi rek bu fekkee lu am la na ko jéem a bàyyi rek wax wax rek mu hmm. man loolu la laa xam. gars yi <laughs> oustaz dootuñu la tee bu yàgg dañ lay gën a ñaanal gudd fan ak wér suñu borom bàyyi la fi nga yàgg fi te gën a wér sa mën-mën yokk macha allah ci wàllu physique sa mën-mën yokk ci wàllu mën-mën ci wàllu dans tous les sens wax dëgg yàlla noonu très social ñu bàyyi la nga tàggatoo ak les moom daal li ma leen di tàggatoo mooy président de lay moom moo jiite réew mi moo suñ cëggul guy lu xew moom la ko yàlla laaj fi mu nii lépp yàlla nga koy seetaan rek ba xam lu fi xew mooy kilifa na ko redressé mu réglé lu fi xew rek na ko réglé waaye bu ñu bàyyee nii ah du baax de waaw ah, nañu nañu jéem a jubbanti réew mi waxoon naa ko ne réew mi dafa toll ci eh, état bu garaaw oto nga di yore ko di ko dawal muy daw cent benn pën ba toj su fekk yaay chauffeur ba waxtaan nekkatu sa cër geestu sa cër fayidu bu dëgëre volant bi téye bu dëgër rek ba oto bi taxaw loolu foofu la Sénégal toll li nga lii nii café nii ëpp naa café lii muy kafe nii di kaf naan woy Mame Mbaye Niang woy Ousmane Sonko danañ yegg foo xam ni danañ bëgg mu arrêté lu arrêté nga xale yi bu ñu màmmee fii xamoo xale xale ngeen xamoo rek xale ci boppam mu màmm àdduna bu tukki la waaw ti ti ti ti nag nit itam wax dëgg yàlla ku laal la ku waaye ku laal waaye mu laal mu de ko ne nag waaw kon nañu fexe rek na fexe ñëpp dal mu neutraliser lépp bu jeex maam may ñaan moom itam na way waaye way moom itam maam may ñaan ah yow koo xam ne dem nga ci projet nga dem ak ko toll ni Sonko nga gañe ko doy na xaalis ba sax may ko waaye nga bëggaat leneen man de loolu jaaxal na ma man de bu ma doon dox nit eh, ñu dem ci yoon ñu àtte man ne ma ya gañe waaye dañ ko alamaan naa nga mu joxoon ma ne may naa ko man daa ah, man laa man xam naa ne loolu dëgg la ci man xam naa ne loolu nekk ci man la waaw man xam naa ne loolu mën naa ko nag sama yoon new ci waaye man lool man naa ko waaw parce que adduna dafa gudd tànk adduna tànk te ëllëg du añ du reer waaye mat naa sedd dañ koy sédd moo tax voilà kon nañu góorgóorlu rek président na neutraliser réew mi mu doxale voilà